mu ne ko ku yeewu faaw nga xalaat te waaru te ku xalaat ba waaru faaw mu beru néewal ak jaxasoom te bu beroo néewal ak jaxasoom rek daldi mucc ku topp bànneexam daldi doon jaamub bànneexam ne bànneexam moo ko yeew ay buum mu di jaamam ku fexe nag ba mucc ci jaamu bànneexu boppam daldi nekk as gor su gore gore ci digganteem ak boroomam ak ci digganteem ak waa àdduna wa man taraka ku bàyyi alxasada kañaan kaana kon nekk loxo di ko ñeel almahabatu cofeel minan naas ci nit ñi mu ne ko boo bëggee nit ñi sopp la lu waay am rek yéene ko ko ba yéene ko lu ko ëpp yaa bu na yi yow sama ndoom xizul mar i tedd ngal cam si xanaa uhu mooy ak doyloom anin naa si walis nit ñi wal xanaaxatu doylu maalum alal la laa yen fa du joj du jeex mu ne ko sama doom nit day teraangaam mooy doyloo yàlla boroomam bañ a geesu nit ñi ku doyloo la ko yàlla sédd te bañ a séeneen bay xool la nekk ci loxoy nit ñi daldi nekk ku tedd fa yàlla nekk di ku tedd fa nit ñi waman alima ku xam ne an na kalaamahoo naka waxam min xilmihi bokk na ci xam-xamam mbaa tukkee na ci xam-xamam xal la ko néew kalaamu foo waxam illaa fii ma dara ci li nga xam ne yaa andi si dana ko jariñ ku xam bu wér ne baat boo wax lu mu néew néew daañu la taxawal bu ëllëgee ne la lu tax nga waxoon lii kon faw da nga néewul say wax di wax rek loo amal njëriñ mbaa nga noppi ku xam ne it jëf dafa jafe te jékki-jékki di wax rek yomb mu wër ko ne nag waxkat li muy yomb yomb moo jëf ne ñamal lu ci nekk daañu taxawal jaam bi bu ëllëgee laaj ko lu tax mu waxoon lii ak lu tax mu jëfoon lii fay ko it lañ ko ci war a fay ku xam loolu nag daldi téye sa làmmiñ ci jëpp wax ju amul njariñ fa haadi lii wasiyat yi mooy sama dénkaane ilayka jëm ci yow wasalaam mu ne ko lool nag mooy li ma lay dénk yow sama ndoom waruwiya anhu aydan karamallahu wajha annahu naka moom lamma xufiya ba xamalee fee alihi ci moom lamma xufiya ba muuree fee alihi ci moom mooy prim kaw mi waaye ba mu xamee rek ca dóor ba ko waaja dóor lay wax naa min darbati ibni maljam ca dóorub ibni maljam la anahu yal na ko doole rabbu allahu yàlla suma afaaqa topp mu xiqi daxaa woona ibnayhi ñaari doomam ña alxasana wal xusayna radiallahu anhuma fa qaal te mu wax lahuma ñee leen ñoom ñaar ne usikuma dinaa leen dénk bi taqwallah ci ragal yàlla taxala wa raxabati ak xemmem fil axirati ci alaxira wa zuhdi ak dëddu fi dunia ci àdduna wala ta safaate bu leen jàq ka métitlu xala cheyin ci dara faatakuma lool raw na leen min xaa ci àdduna wa amala dee leen jëf alxayra aw yiw wa kuuna te na ngeen nekk xasman di aji xuloo lil zaalimi ñal aju tooñ waxaw nañ tey ndimbal lil mazlumi ñal ku ñu tooñ mu ne am nañu ne alimaamu Ali ba ko waaju bon joojee dóoree jeesi ja mu daldi xam nag ba sagoom dellusee dafa woo ñaari doomam ñii muy Xasan ak Useyn ne leen dama leen bëgg a dénk dama leen dénk ngeen ragal yàlla bañ a xemmem dara ci àdduna lu leen ci rawit bu leen ko jekki di metti lu bu leen ko teg fenn xemmem leen alaaxira te daw jëm ca fu ngeen toll dee leen jéem a def lu baax bu ngeen gisee ñaar ñoo xam ne kee dafa tooñ kee na ngeen taxaw kañu tooñ dimbali ko te jàppe ka tooñ seen noon booba muy génn ca tooñ ga su ma daxa topp mu woo wala daxoo doomam ja muhammadan muhammad fa xaalte mu wax la xoo ñeel ko ama sami'ata ndax déggoo maa li nga xam ne aw saytu dénk naa bi ci moom axaway ko sa yaari mbokk yi xaala mu ne ko balaa axa kay fa xaala mu ne ko indi naka man uusikat naa la dénk bi ci moom waxalay ka ma doole laa dénk it birra axaway ka topp sa yaari mbokk yi wa tawqiirahuma ak seenug fonk wa maarifata fadlihima ak xam seen gëneel ñoom ñaar wala taqata te bul dog am ren mbir duunahuma ci lul ñoom ñaar dama aqbal topp mu dëgmal alayhima ci ñoom ñaar waqaalate mu wax ne leen aussi commande naa leen dénk bisi ci muhammad mi xayran aw yiw fa innahu naka moom sayfukuma mooy seen jeesi wa antuma yéen ñaar taalamaani da ngeen xam ne an yi naka man uhibbuhu danaa ko sopp fa ahibbaahu kon sopp leen ko su ma am la topp nag mu door a fite door a dicté alayhima ci ñoom ñaar wasiyatahu dénkaaneem ba almutaqaddimata bay aji jiitu ila an qaala jëm ci ba mu wax fii aaxiriha ci mu jëm gëne yaa bu na yi yow sama ndoom al adabu teggiin xayru miiraasin mooy ngën ji ab dono wa husnul xuluxi te rafet jikko xayru qarinin mooy ngën ji aji lëngoo maanaam ku ñu àndal di lëngoog moom mu ne nee nañu ba mu waxee xasan ak xuseynu dénkaane boobu dafa woo beneen doom bu tudd muhammad ne ko ndax dégg nga li ma dénk sa yaari mbokk yi mu ne ko waaw mu ne ko dama lay dénk loola ba noppi nag dolli la ci ne la sa yaari mbokk yi na nga leen fonk te leen toppatoo te yàlla tax te xam li leen yàlla baaxe mooy ñuy sëti ki gën ci mbindeef yi loola xam ko te jàpp ko du dugg ci menn mbir te yëguñu ko mu wëlbatikuwaat nag jàkkaarloog Xasan ak Xuseyn ne leen yéen te maa ngi leen dénk Muhammad mii seen mbokk la moo xam ne mooy seen ngànnaay mooy seen jeesi te xam ngeen ne ku ma bëgg la kon yéen it bëgg leen ko mu ne am nañu ne sax daa wax loolu ba noppi nag teg ci dénkaane bee nga weesoon ci gannaaw ca mujj gën ak mu daaneele ko ne maa ngi leen di dénk ngeen sàmm teggiin lu waaye doon na ci ku fi bàyyi ko rek doon na ci moom teggiin a ko gën da ngeen jéem a rafet jikko ndax rafet jikko mooy àndaale bi gën ci àndaale yi boo rafetee jikko rek am nga àndaale bi gën ci àndaale yaa bu na yi yow sama ndoom alxaafiyatu jàmm xasiratu ajsaayin fukki xaaj la tisatu juróom-ñeen baa ci ñoom fi sumti nekk na ci noppi illaa xan zikrillaahi ndare walis tudd yàlla wa waahidun benn fii tarki mujaalasati sufahaa yi nekk na ci bàyyi toogaaleeg way desee di wala karama déet jën tedd nga asu di gën a tedd di gën a jafe mina taqwaa ci dagal yàlla wala maaqi la amul benn làqutukaay asu bu gën a tedd minal waraxi ci sàmm wala shafiha amul jenn ajitinoo an jaxu ju gën a mën a faj aajo mina tawbati ci tuub wala libaasa amul benn xeetu koddaay ajmalu bu gën a rafet minal xaafiyati jàmm wal xirsu xir miftaaxu taabi mooy caabi coona wa matiyatu nasabi tey warukaayu coona wa tadbiiru doxal mbir ma wa tadbiiru sàkk pexe qabla amali ci njëkk jëf yu am minu ko dalay wóoluloo mi ne nadami ci réccu bi sa bon na azadu yóbbal ba lil mahaadi jëm ca dellu ga alxuduwaanu jalgati maanaam tooñ alal ibaadi ci jaami yàlla yi dafa yàlla ci dénkaane bi ne leen jàmm day buñ newoon fukki xaaj la juróom-ñeent yépp mi ngi nekk ci teesoo làmmiñ ci jëpp wax ji bokkut ak tudd yàlla maanaam teesoo làmmiñ bañ caa wax lu may tudd yàlla daal ba jàmm nekkoon fukki xaaj nga ne loolu moo juróom-ñeent ya ba ca des nag mooy moytoo toogaaleeg ñu dof ñu xamul ña di moytoo toog ak ña dof xamadi daal mooy benn bay mottali fukki ya gannaaw boo nee jàmm bu doonoon fukki xaaj juróom-ñeent yépp mi ngi ci tey sa làmmiñ ci lu bokkut ak tudd yàlla kon moytoo toogaaleeg ñu desee di ña ñu dofe ña mooy benn bay mottali fukk ya mu ne nag ragal yàlla rek mooy teraanga amul jenn teraanga ju ko féete kaw amuk sàmm doyloo yàlla tey moytu lépp lu lënt ab làqutukaay la boo xam ne ku ca làqu rek raw nga mu ne it tuub dellu ci yàlla borom bi moo gën a gaaw ci faj aajo lépp nit bëgg a faj aajo rek tuub dellu ci boroomam moo gën a gaaw ci faj aajoom mu ne jàmm it moo gën ci xeeti waajtaay yi ndax bu jàmm amut kenn du tala waaj kon lu ñuy tartaarloo muy koddaay muy leneen day fekk rek jàmm am waaye bu jàmm amut kenn du talawaaj moo tax mu ne kon jàmm moo gën a rafet ci xeeti waajtaay yi jàmm ji mu wax mooy yàlla may nit ñi jàmm te musal leen ci fitna bu fitna amee rek kenn du tala waaj aka tartarlu mu ne leen moytu leen xir doylu nguur la goo xam ne ku ca falu doo folliku mukk waaye xir nag moom mooy caaw bi coono ku xas xiru rek coono bu amul àpp dikk na mu ne it bala ngaa dugg ci jenn jëf na nga ca sàkk pexe xalaat ca doo caa dugg ndax boo jekki-jekki songu jëf te jiitaloo ca xalaat ba xam noo ciy dugg noo ciy génne soo tuut rëccoo cay mujj waaye nag bu dee bala ngaa dugg ci jenn jëf jiital tekk jiital xalaat bala nga caa dugg rek mën naa am doo ci rëcc mukk mais nag yóbbal bi nga xam ne moo yées ci yóbbal yi yóbbal bi yées ci mboolem xeeti yóbbal yi mooy dem alaaxira yóbbaale fa tooñ jaami yàlla yi maanaam nekkoon ci àdduna di tooñ jaami yàlla yi dem nag alaaxira te tooñ googu wàccul sa loos mooy moo yóbbal bi yées ci yóbbal yi tuubaa texe li man ñeel na koo xam ne axlasa sellal na lillaahi ngir yàlla xamalahoo jëfam wa xubbahoo akuk soppam wa buxdahoo akuk bañam wa axdahoo akuk jàppam wa tarkahoo akuk bàyyeem wa kalaamahoo ak waxam wa sumtahoo akuk noppeem wa qawlahoo ak waxam wa fiilahoo ak jëfam fa aslaha te yéwénale allahu yàlla bi daalika ci loolee xaalahoo mbiram wa akrama te mu teral nusulahoo ak berandeelam wa ma'aalahoo akuk delloom dafa daaneele dénkaane bi ne leen ka taxe day mooy ka nga xam ne àgg na ci jëf ju muy jëf yàlla rek ay tax àgg na ci ak soppam akuk bañam ak jàppam akuk bàyyeem ak waxam akuk noppeem waxam ak jëfam lépp lépp du génn yàlla mukk mukk mukk mu ne jaam bu àgg foofu day jaam bu àgg foofu day moo taxe dëgg dëgg mooy ko yàlla defal pajub aajo te nar koo teral teraanga ji ëpp ci xeet teraanga yu bu ëllëgee wa fi nuzhatil aribi nekk na ci téere yu tudd nuzhatil arib daxala tàbbi woon na xaatim al asamm baxdaada baxdaad fajtamaxati daje alayhi ci moom ahluha ñoñ baxdaad fa qaalu te ñu wax la ñeel ko yaa aba abdirahman anta yow rajulun waay nga ajamiyun judi ab làkkat alkanu te ejj dotom walay sa yukallimu ko te du waxante yow ahadun kenn illaa qata'tahu ndare nga dagg ko ci lay maanaam ndare nga yey ko xaala mu ne maxi ànd naag man talaasu xisaalin yetti jikko bihin na yoo xam ne ci ñoom azharu laay tiime maanaam laay gañee xalaa xasmi ci sama aji xuloo afrahu dana bég ida asaaba ndeem jam na jub ga wa asxatu te may mer ida axta ndeem juum na wa ahfazu te may wattu nafsi sama bopp an laa tajxala mu bañ a réer àllahi ci kawam xaala nee na nag fa balaxa te jot daalika loolee ahmad abna hambal rahimahullah fa qaala mu ne subhanallahi tudd naa seelu yàlla maa lu màgg màgg anqalahoo xellul na ko maanaam maa anqalahoo mooy man de yéem naa ni mu xelloo ni mu yeewoo xuumu jóg leen binaa ànd ak noonu ilee jëm ci moom falam ma daxala bu mu tàbbee àllahi ci moom xaala mu ne ko yaa aba abdirahman masalaamatu lan mooy mucc mina duniyaa ci àdduna fa qaal mu ne ko yaa aba abdillah laa taslamu doo mucc mina duniyaa ci àdduna xataa takkuuna mbate nekkee fii ka ci yow arbahu xisaalin yenti jikko taxfiru da nga jéggal lil xaw mi ñeel nit ña jaxlahum seenu xamadi watam naaw te ngay fekk minhum ci ñoom jaxla ko sag xamadi wa tabbu dulu te ngay jox lahum ñeel leen nashabaka sa alal wa takkoonu te ngay nekk ayi sandi aji naagu min nashabihim ci seen alal fa isa faxalta boo defee xëkk sa niki ni salimta nga mucc mu ne nett li bii ma nga ca téere bu tudd nuzhatul arib ñu ne ku ñu wax xaatim al asam dafa ñëwoon baxdaad waa baxdaad daje war ku ne ko yow day jaaxal nga nu ab làkkat nga boo xam ne saw laam ni sax setut da ngaa dotom te koo waxal rek yeey ko mu ne dama am yetti mbir yoo xam ne moo may loolu ku may waxal ku ne su waxee la jub dama cay bëgg ndax dëgg rek moo ma yitteel ma xam ko wax ko ak keneen xam ko wax ko ñoo yemoo ci man su waxee nag lu dul noona ma daal di mer ndax ba ma sañoon dëgg rek lay wax keneen it dëgg rek lay wax kon nag bu teggee dëgg ga rek ma daal di mer muy ñaar ñetteel bi nag mooy lu yàgg-yàgg duma may saa bakkan mu yab kookee ba dal ci kawam faawu daal danaa maandu sama digganteeg moom ba duma ko def dara mbaa ma wax ko dara loo xam ne bakkan rek laa ca topp yett yi daal nee na moo tax ku ma waxal yey la ñu ne nag ba Ahmad ibnu Hanbal déggee wax jooju da ko yéem ne cey kee ko yeewu nan dem seeti ko ba ñëwee mu ne ko waaw ku bëgg mucc ci àdduna mooy def xaatim ne Ahmad ibnu Hanbal boo bëggee mucc ci àdduna na nga sàmm yenti mbir yii bi ci jëkk mooy nit ñi buñ xamadee ba dal ci sa kaw bu leen jàppe xamadi ga muy benn ñaari ba nag mooy yow ci sa bopp bul xamadi mbaa ngay topp sa bakkan ba dal ci seen kaw ñetteel ba mooy dee leen jox sa alal ñeenteel ba nag mooy bul yaakaar am dara ci seen alal lii daal boo ko defee mucc ci àdduna faidat lii njëriñ la waalam xamal ne ànnal xaw fa naka ragal xalaa salaasi darajaatin nekk na ci yet daraja al ula bu jëkk ba an yakuna moo di mu nekk daifan di aju doye di yaxturu day toq rek alal qalbi ci xol ba wala yu attiru te du jeexital fil baatini ci biir wala fil zahiri du jaagénn ci bitti fa wujoodu haza amuk gili ragal kal xadami mi ngi mel ni ak ñàkk wattaaniyatu ñaareel bi an yakoon mooy mu nekk xawiyan di aji dëgër fa yuqidu te muy yee alxabda jàmba min al xafalati ci càggante wa yaxmiluhu tem koy yan xalal istiqaamati ci jub xalal istiqaamati ak taalisatu ñetteel bi an yustadda mooy mu tar ba ëpp xataa yabuluxa ba muy jot muy ba muy àgg ilal xunuutu jëm ci naagu wa haza te lii laa yajuusu du dagan wa xayrul umuuri ngën ji mbir ya aw satuha mooy gën jaa diggu seen baa nga ne mooy ba diggu doomu ca ñoom mu ne ragal yàlla yett la bu jëkk bi mooy ragal yàlla ga wayaf lool ci xolam ba du ko yàqal dara du feeñ ci biiram du feeñ ci bitteem ragal gu mel noonu moom nee na mook ñàkk ragal ñooye moo dong ñaareel bi nag mooy ragal yàlla gi dëgër ci moom ba muy sori càggante lépp lu yàlla bëggut mu di ko sori lépp lu yàlla bëgg te muy sax ci sunna mu nekk ca nga xam ne kon rafet na njortu ba sax ci ndigal waaye nag ragal na yàlla it ba di sori lépp lu ñu araamal ak lépp lu ñu sib ak lépp lu lënt ñetteel bi nag mooy ragal nga ëpp ba mu naagu yërmande yàlla jàpp ne moom mënta jaar fenn fenn ba mucc kooku moom dafa araam sañee su ko ndax day yóbbi nit mujj gu ñaaw ndax bu xasee ñaaw njort ci ne lu yàgg-yàgg moom du mucc day wax ne kon àdduna fi nekk moo ma dese lu ma ci bëgg naa ko def moo tax mu ne ragal yàlla bi ci digg bi daal moo ci gën dëppoog li ñuy wax naa xayrul umuri aw satuha ragal yàlla ba woyof lool ba du feeñ ci biir du feeñ ci bitti moom am ko ñàkk ko ñooyam ragal yàlla bi mu jiitam àgg ci naagu yërmaane moom it daa ëpp bi ci digg bi rek bi bu digg doomu bi moo ci gën war rajaaw yaakaar xalaa salaasi darajaati nekk na ci yetti daraja al ula bu jëkk ba rajaaw rahmatillahi mooy yaakaar yërmande yàlla ba xat tasabbu bi ànd ak sabaglu fiihaa ci yërmande ja bi fi'li taaxatihi ci def toppam nga wa tarki maasiyatihi ak bàyyi ak moyam fa hada lii arrajaaw mooy yaakaar ja almahmudu jëri juñu sant ak taaniyatu ñaareel bi arrajaaw mooy yaakaar ja mahat tafriiti ànd ak sàggan wal xisiyaani akuk mooy fa hada lii moom xururun ak waru la ak taalisatu ñetteel bi an yaqwi mooy bu dëgëree arrajaaw yaakaar ja xataa yabuluxa ba mu àgg ilal am ni jëm ci wóolu wa hada te lii xaraamun aji araam la wannaas nit ñi fi rajaay ci yaakaar xalaa salaasi maqaamaati nekk nañ ci yetti maqaama fa maqaamul xaamati maqaamak niti kese yi koy firee maqaamab mbooloo ma wala sàmba sura balisa rajaau tawaabillahi mooy yaakaar tuyaabay yàlla wa maqaamul xaasati maqaamab tànneef ya rajaau ridwaanillahi mooy yaakaar ngërëmal yàlla wa maqaamu xaasatil xaasati maqaamab tànneefu tànneef ya rajaau liqaa illaahi mooy yaakaar taseeg yàlla xobban ngir sopp fii ci moom wa shawqan ak namm ilahi jëm ci moom mu ne it yaakaar day ñetti daraja la bu jëkk bi mooy bañ ca taamu yaakaar yërmande yàlla te taxaw temm ci la koy maye te loolu la koy maye nag mooy di def la mu bëgg moom yàlla di moytu lépp lu mu tere luy tee ab jaamam maneeg moom ku farlu ci sori ak moy tey def ak topp yaakaar nag yërmande loolu mooy yaakaar jañu taamu ñaareel bi nag mooy rekk ne yaakaar naa yërmande yàlla waaye teewul nag nga sàggan lool bari ay mooy lool loolu moom nee na ak waru la seytaane moo ci nax nit ñetteel bi nag mooy yaakaar ja rafet lool ba àgg ci jàpp ne mucc na ba noppi àjjana dong lay dem mel ni koo ko waatloo woon mu daal di koy waat loolu nag nee na daa araam ndax suñu boroom moo ne falaa ya'manu makrallaahi illal qawmul xaasiruun ab jaam fu mën a àgg ci boroomam rekk na boole ragal ak yaakaar waaye ba mu dogu ne man mucc naa ba noppi bu muy nag muy jaam boo xam ne daa sës ci boroomam rek rek sës goo xam ne moom la ko yàlla dogal ci ak muccam bu ci sikki sàkka rek sikki sàkka ga nekk bàkkaar bu rëy rëy mu ne it nit ñi ci topp gi ñi topp yàlla wuute nañu lool ay daraja wuute nañu lool ay maqaama niti kese yi ñoom la tax ñuy def lu baax mooy bëgg mucc ci sawara ak bëgg dem àjjana nga xam ne bu sawara ak àjjana amutoon ku jëf dil la fay dara ñoom duñ jëf dara loolu nag mooy nit ñi fees àdduna muy niti kese yi ña ca topp mooy ñi nga xam ne ñu ràññiku lañ ci mbaax ndax ñoom ngërëmul yàlla moo leen tax di sonn ragal sawara ba bëgg àjjana taxu leen di sonn ngërëmu yàlla ci boppam la ñu bëgg ñooñu ay tànneef lañ lool waaye nag tànneefi tànneef yi mooy ñi nga xam ne sopp guñ sopp yàlla namm guñ namm yàlla moo tax ñu yëngutu di def la ñuy def amul dara luñ xemmem ci yàlla amul dara luñ bëgg ci yàlla ba ngërëmam sax seen xel nekku ca sopp guñ sopp rek yàlla seen boroom ak namm ko rek moo tax ñuy sonn la ñuy sonn ñooñu nag ñoo féete kaw ci mboolem jaam ñi wa amma taqwa ndaal ragal yàlla fa laxoo ñeel na ko salaasu maratiba yetti daraja al ula bu jëkk ba at tawaqi moo di wattandiku anil xadaabi walis mbugal ga al muxalladi ga diguñu béenal mi ga diguñu saxal bi tabarru i ci dañtalu mina shirki ci bokkaale wa alayhi nekk na ci loolu qawluhu taala wa alzamahum te mu waralal leen kalimata taqwa baatu ragal yàlla baaw alsamahum te mu taqale leen ak kalimata taqwa baatu ragal yàlla muy laa ilaha illallah wa taaniyatu ñaareel bi at tajannubu mooy ak sori xan kulli ma walis lépp loo xam ne yu ak si mu dana bàkkaaruloo min qawlin ci wax aw fi'lin wala jëf xatta saxaa iri ba sax bàkkaar yu ndaw ya inda qawmin fa aw nit waxoo moom at taqwa mooy ragal yàlla sharxan ci yoon kama fi qawlihi taala walaw ann ahlal qura doonte naka ñun dëkk ya amanoo gëmoon nañu wat taqaw te ñu ragal yàlla la fatax naa alayhim barakatim min as-samaa'i wal ard ak taalisatu ñetteel bi ay yatanazzaha mooy mu sori xamma walis lépp loo xam ne yushghilu day gàllankoor mën na it yushghalu dana soxlaal mooy dana gàllankoor sirrahu secretam anil aqi walis yàlla wa yatabattala te muy beddiku ilahi jëm ci yàlla bi sharaashirihi ak léppam ay bi nafsihi ak jëmmi boppam waxoo moom nag ak taqwa mooy ragal yàlla ga alxaqiqiyu day ko lu dëgg-dëgg almatlubu ga di bu ñu sàkku bi xawlihi taala ittaqu ragal leen allah yàlla xaqa tuqaatihi dëgg-dëggi ragalam mu ne ragal yàlla itam ñetti martaba la ñetti daraja la bu jëkk bi mooy rek ragal yàlla bu wéetal ko gëm ne yàlla am na te moom rek ay yàlla muy baatu laa ilaha illallah nga xam ne loolaay tee dem sawara sax ca ndax képp koo xam ne amul tawhid boobu